wala nit nga gis ko ni mu mel rek wóor la ne kii mu ngi sonn coono boo xam ne woowul yàlla yàlla ne woo ma ma wuyu la nga woo ko dof ah ne koo xel kon woo yàlla itam amul ab sart déedéet foog nga def ko nii foog nga def lim bii foog nga def laa amul benn sart yàlla def ma ne woo ma ma wuyu la waaye nag lu leer la dal di wax de mu ne nag seetlu leen inna alladina yastakbiruuna an ibadati lan la jëkkee uduuni addu'a mooy woo leen ma woowu ñaan waaye mu ne nag ñi nga xam ne nag dañuy rëy rëylu ngir jaamu ma kon nag addu'a mooy lan mooy jaamu mooy ibada ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ngir jaamu ma bu ñu làqoo foofu duñ ma woo ay seytaane la ñuy woo yaakaar naa borom bi leeralal nañu ko de waxoon nañu la lan wa annahu kaana rijalun min al insi yauzuuna bi rijalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa mu ne ah am na ay doomu aadama yoo xam ne kat ñoom dañ doon muslu ci ay jinne maanaa dañ doon woo ay jinne ngir jinne yooyu musal leen mu ne jinne yi nag noggotu leen ndaxte jinne xam na ne manul dara waaye ba nga làqoo ci moom ragal ko tiit ko rek mu ne aha waa ji ñemewuma mu dal di noggotu nag def loola lu ne nag wuutal nangam defal nangam booy dem joxoñal nangam tuural nangam laalal nangam ci yooyu rek ngay dal di wéy nag ndaxte léegi jekku na la lu yëngu de mu ne laa boo deful nangam du baax de nga gaaw dal di def loolu boo paree ci loolu mu ne ah nangam de boo paree ci loolu mu ne la nangam de ba ñu dàq la génnee la ci jaamu borom bi subhanahu wa taala fitna bu ne dinañ ci dugg sangu ay sanguwaay sax dinañ ko def saw ci ay pot di ko sangu lu ne ci aduna dinañ ko def loo xelaat ci aduna ren di dal di jël deret di am fuñ koy yóbbu loolu yépp li leen koy jëfloo mooy lan mooy cheytaan ren di ay xaj yu ñuul ak ay muus yu ñuul ak ay mbir yoo xam ne kenn xamul fu mu fu mu jëm loolu yépp li koy def rek mooy cheytaane bi léegi mu ngi koy noggatu gannaaw ragal nañu kon ngir jeexal ngir wone ne seytaane xamul waaye mu ne ñooñuy jëf-jëf jooju nag bañ maa jaamu di woo keneen sa yadxuluuna jahannama daaxirin ñii dinañu tàbbi safara jahannama ma denc leen fa yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal kon lu ñuy wone ne jinne xamul ñaari aaya dong benn bi mooy ba ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ku yéeg ci asamaan bugg a dëglu rek ñu dal di ko sànni jumu safara mu dal di daanu lu ñu waxoon inna la nadiri acharrun urida bi man fi l ardi am araada bihim rabbuhum rachada ah xamuñu kat lu yàlla namm ci waa suuf ndaxte léegi la ñu mënoon mënatuñu ko de waaw lan la ñu jëfandikoo foofu xamuñ waaw ku xamul nag boo buggee mu xam loola nag foo jëm kon du sotti ñaareel ba suleymaan alayhi salaam borom bi subhanahu wa taala may na ko kàttan muy duma ay jinne ñu koy liggéeyal jinne yiy fétteen mu jéng leen dal di leen yeew jinne di liggéey rek moom itam mu ñëw taxaw rek sukkandiku ci aw yetam ndeke dee na bu yàgg jinne yi bu geesu rek gis mu ngi jàkkaarloo ñu liggéey rek service yi continuer rek ah léegi moom faatu na foofu ba max max kañ la max di max ab yet ba mu damm kooku diire bu gudd la max di max di max ba yet wi daanu rek suleyman dal di daanu eh waa ji ku dee la ah borom bi subhana wa taala mu ne ñii bu ñu xamoon xëy dëgg dëgg duñu duñu nekk ci mbugal bi kon ñaar yi rek doomu aadama war naa xam ne jinne xamul waaye boo ko toppee rek mu dal di la noggatu kon yàlla nañu borom bi subhana wa taala gis woon njub te may ñu xol boo xam ne day nangu njub boobu allahuma arina alxaqa xaqan wa arzuqna husna ittibaa wa arina albatila batilan وارزقنا حسن اجتنابه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi dellu si waat nañ li gën a am solo ci dundinu doomu aadama mooy gën a wéralaat pas-pasam nemmeekuwaat ko bu baax a baax te ñu ngi woon ci al usulu salaasa ñetti mbir yi nga xam ne jullit waru ko réere ñu ngi nekkoon ci melo yi nga xam ne mooy melok jaamu borom bi subhanahu wa taala ak bërëb ya ñu koy jaamoo imma mu nekk béréb wala mu nekk la ñuy sukkandiku ngir jaamu ko muy cërub doomu aadama tey nag yooyu muñu junjaloon lu mel ni addua wal xawf wal xasya wal xusu wal inaaba wal istiaana wal istigaasa ak yeneen yu mel noonu mu ne benn bu nekk nag boo jox keneen kudul allah dina fekk ki ko def mushrikun kafir moo tax mu ne ñu faman sarafa minha shay'an li gayri llah fa huwa mushrikun kafir ragal keneen kudul allah yaakaar keneen kudul allah sukkandiku ci keneen kudul allah ñaan wullu keneen kudul allah tallal sa loxo keneen kudul allah mbir yu mel noonu ak yu baree bare mu ne képp ku ko defal keneen kudul borom bi subhanahu wa taala ki ko def day bokkaale na te bokkaale boobu dina ko yóbbu itam mu nekk ku génn topp waliyasu billah dina ko yóbbee ba mu nekk kufru maanaa weddi weddi bi nag ñaari xaaj la muxrijun min al milla ak boo xam ne laa yuxrijuhu min al milla boo xam ne da koy génnee nekkatul jullit aslan ak boo xam ne dina des nekk jullit waaye jullit buy bokkaale lay doon ñu joxe ci misaal képp koo xam ne woona ku faatu nga ñu sul ko te mu gëm ne kooku ci boppam mën na koo xettali loolu ñu ngi ragal bu mu nekk shirk boo xam ne muxrijun min al milla da koy génnee ci lii nga xam ne mooy pas-pas bu sell ndaxte gëm na lu ñu ko waxoon na ko weddi kon wala muy woo di yaakaar di ragal di ñaan koo xam ne teewul ndaxte joxe woon nañ ñetti sart yoo xam ne dina dagan nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla mooy an yakuna hayyan xaadiran qaadiran bu fekkee ne ki ngay woo ku dund la ku teew fa nga ne la ku la mun a dimbale ci li nga ko woowee la loolu du dugg ci bunt bi loolu day nekk lu dagan ndaxte day nekk ñaan ndimbal ci keneen mais ñetti sart yooyu bu manqué benn rek mbir mi dootul mun a ne bu fekkee ku dund la te man na laa fajal li nga koy woowee te nekku fa kon du ko yëg bi su fekkee ne yaakaar nga ne dina ko yëg wala dina la dégg kon jox nga ko melog yàlla kon loolu itam du dagan fokk rek ñett yooyu dal di daje kon looloo tax mu ne képp koo xam ne ñaan na keneen ngir mu fajal ko ay aajoom yoo xam ne yu doomu aadama bi mënul la wala mu teggil ko ay jafe-jafe yu nekk ci moom te doomu aadama mënu ko wala mu xettili ko ci loo xam ne bugg na koo góom ci lu jege wala yeneen yu mel noonu te nga tudd keneen ku dul yàlla mu ne kooku day def na bokkaale bokkaale boo xam ne bu mag a mag la bokkaale boo xam ne la ko génnee ci diine te day nekk ki yéefér te yéefér la boo xam ne itam bu ñuy teg ci moom ay atte kon nit ki bu moytuwul mun naa wax kalimatul kufri te du ko yëg maanaa wax baat boo xam ne baatu kéefér la te fekk moom ci boppam sax bàyyiwu ci xel looloo tax doomu aadama bi war naa xisaab boppam rawane rawatina ci làmmeñam mu tàmmal ko tudd borom bi subhanahu wa taala ci mbégte tudd borom bi subhanahu wa taala ci mer tudd borom bi subhanahu wa taala ci tiit ndaxte mbégte ak tiit ak mer la doomu aadama bi yaakaar rek ci lay dellu kon loolu moo tax mbir la moo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la muallif bi rahimahullah mu ne dalilu li ma wax ci quranul karim mooy waxu borom bi subhanahu wa taala wa man yad'u ma'a allahi ilahan axara la burhana lahu bih fa innama xisaabuhu inda rabbihi innahu la yuflihu alkafirun mu ne borom bi subhanahu wa taala leeral fii ne këpp ku woo keneen ku dul allah amu ci tegtal amu ci ndigal te atteem mu nga ca borom bi subhanahu wa taala te kooku moom du texel këpp koo xam ne ku weddi la mu sum mu tuddee ku fi weddi mu ne ñu tegtalam itam ci sunna mooy hadis ad du'aau muqul ibada mu ne lii nga xam ne mooy ñaan mooy yuqub jaamu yàlla mooy liy nekk ci biir yàq donte nag hadis bi lu ëpp ci borom xam-xam yi wone nañu ne hadis bi daal duun bu dëgër duun bu jaar yoon kon hadis bi am na lu ñu ci jam maanaa wérul kaddu ga joge ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du kaddu gii waaye maanaa bi nag wér na ndax la joge ca yonent bi mooy addu'aau huwa al ibada mu ne ñaan daal mooy jaamu yàlla ñaan mooy jaamu yàlla huwa al ibada waaye du muxul ibada bi ñuy wax muxul ibada boobu la ñuy wax ne am na ab sikk bi wér mooy addu'aau huwa al ibada kon mu indi ci benn damir buy wone ne ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla moo tax borom bi subhanahu wa taala di ñu ko digal di ñu tëkku itam ci ñi koy bañ a def mu dal di ñu wax ne wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin borom bi subhanahu wa taala lënkale fi ñaari baat mooy yow yonent bi wax leen ne borom bi subhanahu wa taala nee na leen uduuni astajib lakum woo leen ma ma wuyu leen mu jëfandikoo baatu du'a woo leen ma ma wuyu leen wala ñaan leen ma ma may leen mu ne nag inna alladina yastakbiruuna an ibadatii ña nga xam ne dañuy rëy rëylu ngir ñu jaamu ma maanaa zalika ñaan ma kon bu njëkk ñaan la wax ñaareel bi mu ne jaamu kon koo ñaan abattahu këpp koo ñaan rek jaamu nga ko waxuñu nag nga ne ko may ma nangam wala aw ma dépense wala aw ma paas waxuñu ñaan boobu ndaxte ñaan boobu boo seetee ñetti sart ya ñu waxoon daje nañu ci yani hay haadir qaadir ku dund la ku teew sa kanam la ku man li nga koy ñaan la kon beneen ñaan la ñuy wax ñaan teggi fitna ah am lu la dab rek nga ne diw teggil ma nangam te fekk teewu fa wala doonte teew na fa loolu day nekk bokkaale ndaxte manu ko kon boo ko defee rek jaamu nga ko def nga ko ilaa yastati an yanfaa wa an yadurra mu ngi mel ni def nga ko ki ñuy jaamu koo xam ne man naa lor man naa jëriñ te loolu borom bi subhanahu wa taala dong moo jagoo loolu kon mu ne ñooñu nga xam ne dañuy rëy rëylu ba duñ ma ñaan duñ di ñaan keneen sa yadxuluuna jahannama ne ñooñu day dinañu tabbi safara jahannam daaxiriina ñu dal di leen denc foofu yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal kon fii boo seetloo borom bi tuddee na fi ñaan ibaada wax na ne ñaan daal jaamu borom bi subhanahu wa taala la kon koo ñaan rek dina fekk jaamu nga ko looloo tax ñëw na ci qur'anul karim ci béréb yu baree bari te ñëw na ci qur'an it ku ñaan keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala bokkaale na kon loolu mooy wone ne addu'a u ci boppam mooy ibaada te ñaan borom bi subhanahu wa taala képp ku ko rëy rëylu rek dina fekk moom ci boppam gëmul borom bi dina fekk wàññil na borom bi subhanahu wa taala àqam ndaxte àqu borom bi ci jaam yi mooy ñu jaamu ko li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajoon sahaabi bi nga xam ne moom la àndaloon amaan na muaz ibnu jabal mu dal di ko wax ne atadiri ma haqullahi ala alibad wa ma haqu libadi ala allah mu ne ko ndax yow mii day xam nga ban àq la yàlla moom ci jaam yi waaye ban àq la moomale jaam yi ci moom mu ne yàlla ak yonentam day ñoo xam loola mu ne ko xa àq boobu mooy an yabuduhu wala yushriku bihi shay'a nañu ko jaamu moom dong nag waaye bu ñu bokkaale ak moom kenn mu ne loolu mooy àqu bi yàlla ci jaam yi ku ko def rek sa jaan wàcc na waaye ku ko bàyyi rek dangar dugg na la moo tax ñaareel bi mu ne li jaam yi moom fa yàlla mu moomale leen ko mooy allaa yuaziba man laa yushrik bihi shay'a moom itam mu ne duma bugal mukk nag këpp koo xam ne bokkaale wu maag lenn kooku itam duma ko bugal kon ku rëy rëylu ci mbir mooma day dal di dugg jahannama mu nekk saaxiriina zaliliina xaqiriina ñu nekk ñoo xam ne ñu ñu tuutal la ñuy doon ñu ñu doyadal la ñuy doon ñu ñu xeeb la ñuy doon muy mbugal boo xam ne moo daje ci baatu daaxiriin yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal mu dal di ñu waxaat ne bu dee tegtal bi ñuy wax ne kenn warul ragal ku dul allah loolu itam ñu bàyyi ci xel ndaxte ragal jaamu la ci jaamu yàlla yi ragal tiit loolu borom bi subhanahu wa taala dong lañ ko war a jëmale waaye nag waxuñu lii nga xam ne mooy xawfu tabii ragal bi nga xam ne mooy ragal bi borom bi subhanahu wa taala sàkkee doomu aadama gis ab jaan dal di daw oto dëkk man si la nga dal di tiit yuuxu loolu moom waxuñu ragal boobu ragal boobu la ñu sàkkee doomu aadama ragal bi ñu wax kay mooy toog wéet sa xol dal di tiit ci diw ay diw day moom boo ko tuddee sax nga ne yàlla na ma yàlla jéggal ragal boobu la ñu wax ne yàlla dong nag lañ ko war a jagle mu ne loolu nag am na dalil ci quranul karim borom bi subhanahu wa taala ni ñu fala taxaafuuhum wa xaafuunii in kuntum muminin bu leen ragal bu leen di ragal ñeneen ñu dul man ragal leen ma man dong su fekkee ne gëm ngeen kon boo fa taqee keneen koy ragal ku dul allah kon ngëm nga mu wax fii dina fekk toxu na looloo taxoon mu joxoñal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ko ah am na lu ma la sant de waaye ragal nga ñu yedd la wa tuxfi fi nafsika allahu mubdi ndaxte lim ko waxoon mooy xale ba mu yore woon mooy zeyd ibnu xaarisa mu ne ko maay sa papa yaay sama doom boo deewee ma donn la bu ma deeyee nga donn ma borom bi subhanahu wa taala dem be folli loolu mu ne loolu du njub loolu kat yéena ko doon def balaa islam di wàcc waaye nit kat warul donn keneen sabab boobu bokk ci mu ne ko nag léegi li koy folli yaa ko labataloon soxna te léegi soxna soosu réeroo nañu maanaa am na jafe-jafe bu nekk seen diggante léegi kay lii xew mooy zayd moomu bu fasee soxna soosu nga ko wuutaloon demal takk ko indi mu nekk sab soxna mu nekk lu rëy nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu zayd ñëwee mu ne ko toppatool sa soxna si te nga ragal yàlla jàppal sa soxna si nga toppatoo ko nax ko te nga ragal yàlla borom bi subhanahu wa taala ne ko aha yaa ngi nëbb nag ci sa xol loo xam ne dinaa ko feeñal dinaa ko wàccee ci alquran nag ñépp jàng ñépp jàng ko nag ndaxte dara taxul loolu lu dul wa taxsa naas wallahu ahaqu an taxsa yaa ngi ragal nit ñi rek ngir ñu yedd la jël na jabarut doomam amaan na loolu yaa ngi tiit ne buñ la yeddee amaan na sahaaba yi am ñu bàyyi wala naqar dal di am wala yéeféer yi am fuñ la jamee loolu dong ngay ragal waaye nag subhanahu wa taala nga waroona gën a ragal bañ a ragal bépp doomu aadama borom bi subhanahu wa taala wàccee ko ci qur'anul karim mu naan ñu walam falamma qada zaydun minha wataran zawwajnaakaha ba zayd ci boppam fajee soxlam ca soxna suusu male na la jaamu ulie takk ko nag ba mu ko takkee ba pare naa fekk commencé di dem ci zayd naan kii day moom jëfu mooy waxoon ne sa papa nangam ak nangam waaye zaydu ne bu du doon xew-xew bi yàlla du ma tudd ci quranul karim amul benn saxaabi bu mu tudd ci turam illa zayd ibnu alxaarisa kon mbir moomu mbir mu am solo la soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi lu mel ni aisha lu mel ni xafsa radiallahu anhuma ñoom itam dañ doon gis seen ngéneel mel ni aisha bu toogeeg soxna yi mu ne leen man dong nag la yonent bi jël maay xale yéen ñépp ay màggat ngeen ci ñëwee waaye man nag man dong la yonent bi jël maay xale moom itam mu koy puukare woo waaye zeynab bintu jaxs itam ba xew-xew bi amee ba ñu indi ko ci kër yonent bi moo tax aasha yi dal di tëral kàddu googa kooku itam dal di wax ne yéen ñépp dee seen papa leen maye yéen ñépp ku nekk fii la ñu toog maye la ay doomu aadama ñoo la maye man borom bee ma maye ca kaw alaars ah kon loolu itam beneen beneen ngëneel la ndaxte seede amul takk amul cang amul soxna saa ngi noonu zeynab bint jaas yàlla ne may na la demal jël mu dem indi këram kon hakada kon loolu moo tax ragal moom borom bi subhanahu wa taala dong lañ koy jagleel waaye ragal ba ñu junjaloon yonent bi nag du ragal ba borom bi subhanahu wa taala tere ndaxte ko ku ragalu tabii moom borom bi subhanahu wa taala moo ko yónni moom am nay mbir yoo xam ne bu ko defee dina tiim ne mbaa mbir yooyu du gàllankoor islam waaye xaasaa yonent bi sala allah sallam di ragal keneen beneen ragal ndaxte looloo taxoon moom ay gardien sax daawu ko jël ba aaye bi wàccee wallahu yasimuka min annas maanaa yow moom ku lay wëttu loolu moo tax am na benn noon yonent bi sala allah sallam génn ak saxaaba yi dem ci benn sariya walla dem ci benn gazwa yonent bi beru tëdd di nelew mu koy yoot mu koy yoot ba tiim ko yëgati jaasi ne waa yow muhammad waaw yow nag moom tey kan moo may musal ci yow sama diggante ak yow tey kan moo fa mun a jaar yonent bi xippi botam dal di ko xool ne ko allah jaasi bi dal di wat yonent bi dal di ko jël mu ne waaw yow nag ne ah yow moom ku baax nga ku bari yëm na ne nga kon gis nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu xat rek kaddu ga nga dellu ci allah kon loolu moo tax li aaya bi di junj du ragal boobu beneen bi ngir du gàllankoor daawa loolu moo taxoon borom bi subhanahu wa taala ne ko côté boobu itam yow moom ajul ci man rek daawa bi dem mbaa mu gàllankoor loolu ci sama loxo la nekk mu allif bi wax ñu ne am na dalilu yaakaar boobu itam borom bi subhanahu wa taala dong lañ ko war a defal ndaxte lenn la ci xeetu jaamu borom bi subhanahu wa taala képp ku ko jagleel keneen ku dul borom bi dina fekk di dugg na ci lënt lënt waaye dina fekk bokkaale na mu ne borom bi subhanahu wa taala mu ñuy wax ne faman kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahda mu ne borom bi subhanahu wa taala ci dalilu raja maanaa yaakaar mu ne faman kaana yarju képp koo xam ne day yaakaar na dajeeg borom bi subhanahu wa taala mu ne fal yaamal amalan saliha loolu moo tax léeg-léegi yaakaar dina nekk ci jëf ki nga xam ne mu ngi yitte woo wax ju baax jëf ju baax jëflanteb lu baax muñ jéggale weesale dimbale kooku boo seetee dina fekk moom yaakaar na borom bi subhanahu wa taala loolooy wone ne dafa yaakaar borom bi subhanahu wa taala ndaxte la muy def wóor na ko ne du réer borom baa ko ko dencal moo xam sant nga ko wala santoo ko xas nga ko wala xasoo ko moom wóor na ko moom lii borom baa ko koy dencal moo tax mu ne képp ku ma yaakaar nag fal ya amal amalan sali jëfal jëf ju baax kon kuy jëf safaan ba yaakaar borom bi ndaxte bu wóorul ne dinañ ko fay safaan boobu ndikoon du jëf jëf jooja loolu moo tax yarju fii maanaa mooy ku yaakaar tiyaabo ba jóge ca borom bi subhanahu wa taala képp koo xam ne yaakaar na tiyaabo bu jóge ci borom bi subhanahu wa taala kooku mooy jël alalam di def fii sabilillah ndaxte wóor na ko ne ñu ngi ko bind ca téere jëf ya du réer ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne man day jëfub doomu aadama du réer te duma ko jaawale moo tax yelwaankat yi kaddu googu dañ koy yóbbaale du jaawale jëfu kenn nag morom ma ngir ñu ñaaxaate ne loo def rek dañ ko fa dal di fekk te loolu mooy li am mu ne kon nag ku yaakaar sama tiyaabo jëfal jëf ju baax ndaxte jëf ju baax dong man lay fay waaye nag wala yushrik bi ibadati rabbihi ahda mu tuddeewaat fii lii nga xam ne mooy yaakaar mooy ibaada mu ne bu mu bokkaale ci jaamu borom bi subhanahu wa taala keneen kon bokkaale fii mooy lan mooy bul yaakaar keneen boo yaakaaree keneen rek kon borom bi ne def nga lii nga xam ne mooy bokkaale moom dong nga war a yaakaar ndaxte moo mun a faj moo mun a joxe moo mun a musal mooy dundal mooy faat mooy jéggal mooy teral mooy toroxal kon kooku dong kon lañu war a yaakaar mu ne itam tegtal am na ci alquran ci tegtalu sukkandiku mooy atawakkul sukkandiku boobu ci boppam moom la ñuy suddee sidqu tafwid mooy jël say mbir yépp aj ko ci borom bi subhanahu wa taala sa mboole seen mbir daal nga bàyyee ko borom bi subhanahu wa taala loolu mooy li ñuy tuddee atawakkul bul ko bàyyee keneen waaye na nga ko dénk borom bi subhanahu wa taala waaye am na ñeneen it ñu ne tawakkul mooy al istislaamu lillah mooy jébbal sa bopp allah yow ci sa bopp daal nga jël ko jébbal ko kii nga xam ne mooy yàlla boo ko jébbalee keneen ku dul yàlla nag gën naa tarati ndaxte dina fekk jël nga lu yàlla moom nga jox ko leneen lu yàlla moom ndaxte allah moom moom doomu aadama yi kon nag waroo jël mbiru yàlla nga dal di ko jox keneen moo tax borom bi wax ñu fii ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum muminin mu ne wàkkeelu leen ci yàlla ndéem gëm ngeen yàlla ndaxte nag nit ki munul wàkkeelu ci ku mu gëmul kooku mustahil fokk rek balaa wàkkeelu di am ak jébbulu gëm moo koy dal di jiitu gannaaw ba gëm amee yaakaar dal di am nga wàkkeelu ci moom nga ñëw jox ko sa bopp nag loolu moom allah dong lañ ko war a defal ndaxte koo ko defal ku dut yàlla rek boo moytuwul nga sul ko des fi boo moytuwul rek nga yóbbu ko ca sëg ya dal di fi des kon des bi nga fiy des mooy wone ne jëf ja nga jëfoon jaarul yoon ndaxte bu jaarul yoon moom bu fi jógee nga jóge fi ndaxte borom bi subhanahu wa taala moom moo ne seconde bu nekk fii sha'nin moom mu ngi ci mbir foo fu mu mun a nekk rek mu ngi ci mbir ndaxte deret nu muy dawee xol nu muy demee loolu yëpp borom bi subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal moo koy saytu moo koy yëgal moo koy dal di aar kon kooku keneen ku dul moom nag borom bee yore ay mbiram kon boo ko joxee say mbir kon day jafe-jafe am na benn ci ñaar yey mun a am réer moo la ko defloo wala fékkéerlu moo la ko defloo benn ci ñaar yooyu dong mooy am dangaa réeree ne lii yàlla dong lañ ko war a defal nga jox ko ab doomu aadama wala xam nga ko ci boppam waaye dangaa féttérlu dal di topp sago ndaxte loolu itam day am danga gis doomu aadama boo xam ne day dal di féttérlu li cheytaane féttérloo wóor na ko ne borom bi subhanahu wa taala moo yeeyoo topp moo yeeyoo dégg moo def lu nekk te moom ci boppam sax li muy bon bon du gëñ lu dul ci turu borom bi subhanahu wa taala cheytaane alquran ba mu jeex fu muy gëñ rek ci turu yàlla laay gëñ yi mu naan ko maa ngi gëñ ci sa turne sa jaam yi dinaa leen beewloo fa bi izzatika la uhriyannahum ajmain doomu aadama nag yées ba gën a yées seytaane ba di gëñee ci leneen lu dul yàlla te seytaane moom ñemewu ko xelaatu ko sax moo tax borom bi subhanahu wa taala ne fii aa wàkketlu leen ci man day su fekkee ne gëm ngeen ma bu ngeen gëmul nag jëm leen ca la ngeen gëm mu ne nag wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasb mu ne këpp ku wàkkerlu ci yàlla nag mu doy la loo ragaloon mu teggi ko loo bëggoon mu indil la ko wàkkerlu ci yàlla nag wonewul ne yàlla du la nattu déedéet ndaxte yàlla ni muy nattoo doomu aadama yi mooy ku nekk li tolloog imaanam lañ lay nattoo moo tax li ñuy nattoo yonant yi duñ ko nattoo keneen ku dul yonant li ñuy nattoo awliyaullah yi duñ ko nattoo keneen ku dul wali nitu ordinaire buñ ko nattoo rek mu nekk yéeféer wal iyadu billah moo tax moom nattoom lu tuuti lay dal di doon waaye ba nga gëmee bi dal di dëgër nag borom bi subhanahu wa taala jóor ci yow ay nattu ngir nattu yooyu ñoo lay raxas ñoo lay laabal bee doomu adama boobu dal di set looloo tax ñenn ñi di ko misaalee ci or boo bëggee mu baax da nga koy nattu tàngal ko ba mu tàng jër dal di ko def na nga bëggee mu gën a rafet gën a leer ba mu baax a baax kon doomu aadama it kazalika nattu bi ko borom bi subhanahu wa taala di def bu ko muñee rek bàkkaar ba yépp dal di sippeeku mu nekk ku set wecc ku jege borom bi subhanahu wa taala kon yal nañu borom bi may suñu nattoo ñu am dëgër laay mu ne ñuy am na tegtal boo xam ne mooy arragbatu warrahbatu walxusu arragba mooy xemmem la ca yàlla arrahbatu muy tiit mbugalug yàlla alxusuu mooy toroxlu am na nag ñoo xam ne ñu ne ñoom bu ñuy jaamu yàlla dañ koy jaamu rek buggaluñ ko dara ah bu ñuy bàyyi lu ñaaw dañ koo bàyyi rek waaye tiitaluñ ko dara loolu nag moom jege na sax mu nekk ab kéeféer moom ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne du loolu de këpp ku buggal buggul ci man dara rek maa la gën a bañ këpp ku buggul ci man dara rek man maa la gën a bañ te ku borom bi subhanahu wa taala bañ rek kooku day dal di torox day dal di yées kon nit ki day jaamu ngir xemem waaye day jaamu ngir ragal loolu bu dajee rek torox lu dal di ñëw borom bi subhanahu wa taala dal di jéggal moo tax ba borom bi di lim yonent ya yi nga xam ne kuy jaamu yàlla ñoo la raw ku ñuy nattu ñoo gën a diisle bam leen limee ba pare mu wone ne ñoom nañu doon jaamoo borom bi subhanahu wa taala mooy yaakaar ci moom ak ragal moo tax bam leen limee ba pare mu ne ñu innahum kaanu yusaari'uuna fi lxayrat wa yad'uunana ragaban wa rahaban wa kaanu lana xaasiin ñetti baat yëpp muy indi ko innahum mu ne naka yonent yooyu ma tudd dey kaanu ñoom ñépp nekkoon nañu yusaari'uuna ñuy njëkkalante fil xayraati ci def ay yiw wa yaduunana ñu may woo di ma jaamu ragaban ngir xemem ca la ma yore wa rahaban ngir tiit ca mbugal ba ma am wa kaanu te ñoom ñépp nekkoon nañ lanaa ñeel ma man yàlla xaashiina di ma toroxlul kon yii loo ko jëmale ku dul allah dina fekk bokkaale nga amma dalil bi nga xam ne mooy xasiya mooy tiit mooy ragal mooy dëgg-dëgg li ñuy tuddee ak taqwa mooy fexe làmb yiw ngir nga doxale ko sa diggante ak mbugalu borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu itam borom bi moo ko junj mu neñu falaa taxshawhum waxshawnii mu ne ngeen la waay yéen ñi ragal yàlla bu leen ragal ñeneen ñu dul yàlla ragal leen ma man dong dong dong dong na ngeen ma ragal su ngeen ma ragalee man dong rek ngeen ñeme leneen lu dul man waaye su ngeen ma ñemee rek ngeen ragal leneen lu dul man moo tax bidaakat ak naafeq ak ku génnu topp lu ne lu dul yàlla rek ñeme yàlla dong la ñu ñeme bidaa de moom ñeme nañ koo def sos lu ne wax bu rëy bu ne ñeme nañ koo wax dig la aljanna sax ñeme nañu ko waaye boo leen xooloon bañ a xeb sax kii de xaw ma mooy xool ñemewuñu la moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne yaxsabuuna kulla shayhatin alim yaxsabuuna kulla shayha alim lu ne rek ragal nañu ko lu dul yàlla moo tax bidaakat yi koo dem rek da nga gis ne saxara yi ñoo ko wër saxara yi bokkaalekat yi ak ak njabarkat yi koo dem ci bidaakat rek demal ci këram da nga gis ne ñoom ñoo ko wër ay néeg lañ leen fa defal li ñuy def rek mooy bokkaale bu ñuy tukki sax ñooñu ñoo leen ñoo koy orienté naan ah war ngaa dem de wala waroo dem wala nii nga war a duggee wala nii nga war a wàccee nii nga war a toogee nii nga war a xoolee nii nga war a solo ñoom ñépp haka la ñoom ñépp haka la waaye salafi ak sunni ki nga xam ne moom yàlla dong dong nga la yaakaar moom dong ragalul dara loo wax rek mu ne lu la lu la neex defal lu leen neex def leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa taala waxoon na ko wax ko yéeféer yi bu fekkee ñeme nañu woo leen ñu woo seeni soxna ñu ñëw ñu woo seeni doom ñu ñëw ñu woo seeni jege ñaale ñu ñëw man yonent bi man itam ma def noonu ñu taxaw ñu ne yàlla ñun ñii taxaw ku nekkul ci dëgg alak ko waaye ñemewuñ de kenn engagé wu lu tax engagé wu yàlla la ñu ñeme ragal leneen lu dul borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne bu leen ragal ragal leen ma man dong mu ne itam am na tegtal dalilul inaaba al inaaba mooy tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala lu xew rek nga dal di dellu kon inaaba nekk na ñaari maana mun naa nekk maana tawba mun naa nekk itam maana bi nga xam ne mooy ibaada te ñaar yooyu ñoo lënkaloo ndaxte boo tuubee ci borom bi subhanahu wa taala rek jaamu ko maana bu ñu waxee anaaba maana dalika taaba ila allah aw abada allah subhanahu wa taala mu ne loolu itam doo ko defal keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala sukk ci kanamam naan ko tuub naa Ah, ah, ah. mun nga koo ñaan jéggal de jéggal ma defal ma nangam ak nangam waaye yeneen yooyu moom duñ ko jëmale ku dul borom bi subhanahu wa taala wala torox lu ci kanamam torox lu jaamu torox lu ci kanamam torox lu jaamu amatoo droit geesu amoo droit wax torox lu be boo ko gisee yaakaar ne kii loolu duñ ko defal kenn ku dul allah moo tax borom bi dañu fii wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu dellu leen walla wa anibu tuub leen ila rabbikum jëm ci seeni borom wa aslimu lahu te ngeen jébbulu fa moom loolu moo tax ibrahim alayhi salaam ki nga xam ne dañ koo nattu ba borom bi ne subhanahu wa taala ne ko nattu yépp réussir nga moo tax ba mu ko woowee mu ne ko yow ibrahim jébbulul nag ibrahim ne ko aslamtu lillahi rabbil alamin aslamtu lillah rabbil alamin ah kon nag jébbulu naa ñaal yàlla mi moom lépp kon ci kooku laay jébbulu dal di jëm ci moom moo tax aaya bi dal di ñu wax ne daw leen tuub leen dellu leen ci seeni borom ngeen dal di ko jébbal seeni mbir mu ne itam am na tegtal bi nga xam ne mooy istiaana mooy sukkandiku ki nga xam ne bés bu nekk dinañu signé contrat ak borom bi subhanahu wa taala ne ko ci yow dong la ñuy sukkandiku nag iyaaka na abudu wa iyaaka nastainu bés bu ne dinañ ko wax nga génn foofu sukkandiku ci keneen ku dul borom subhanahu wa taala am beneen aaya bu dal ci sa kaw ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun e yow ki gëm wooye na la ki gëm ndaxte déclaré nga ne dangaa gëm mu ne lu tax ngay wax loodul def nga ne ci man dong ngay sukkandiku te yaa ngi noonu sukkandiku ci keneen fakastalu di ko woo ah kon mbir mi doy na waar moo tax mu ne ñu yow yaa waxoon ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu kon mooy tegtalu sukkandiku ci borom bi subhanahu wa taala dong li ko waral mooy waxin la ci arab iyaaka mooy ci yow dong waroon munoon naa wax ci arab ne naabuduka wa nastainuka maa ngi lay jaamu maa ngi sukkandiku ci yow waaye loolu wax bi kon du tënku ci yàlla dong mun nañ ciy déggee mun nga koo defal keneen ku dul yàlla waaye nag wa iyaaka ci yow dong nag na abudu la ñuy yaamu wa iyaaka ci yow dong nag nastainu la ñuy sukkandiku kon keneen amu fa place ñëw na ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ne ida staanta fastain billah ci hadis bu gudd ida staanta fastain billah mu ne soo demee bay làmb cëslaay wala sukkandiku mu ne def ko ci borom bi subhanahu wa taala waaye bu ko jëme feneen bu ko def ci keneen kon ci borom bi subhanahu wa taala dong nga ko war a jëmale ci borom bi subhanahu wa taala dong nga war a sukkandiku ci mbir yu mel noonu kon ba léegi dinañ gis ne indil nañu dalilul istiaazatu tegtalu làqu booy bugg a làqu na nga làqu ci borom bi subhanahu wa taala yal nañu borom bi musal waaye bul ne yal nañu diw musal diw munul musal boppam sàkkaa keneen moo tax istiaasa itam boo ko defee keneen ku dul allah dina fekk bokkaale nga moo tax borom bi subhanahu wa taala ne ñu qul audu bi rabbil falaq qul audu bi rabbin nas mu ne booy wut làqatu làqul ci yàlla waxal ne maa ngi làqatu ci borom mbugal bii nga xam ne mooy falak wala boog maa ngi làqatu ci borom bëccëg ndaxte alxolaqu mun naa nekk bi maana jant bi bu génnee ba leer dal di xotti guddi gi moo tax am na fu borom bi subhanahu wa taala wax ne faaliqul habbi wan nawa ak falaq itam am na ñu ne déet maanaam mooy benn département ca jahannama dal nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal mu ne kon booy muslu muslul ci kii muslu ci borom bëccëg wala nga muslu ci borom mbugal wala nga muslu ci borom nit ñi boo musloo ci keneen te moom moomul kenn munul soppi xolub kenn munul dugal ci xolub kenn cofeel ngir mu bëgg la kon muslu bi nga muslu ci moom amul benn sens waaye boo ne yàlla day nit ñi ñëpp yaa leen moom kon maa ngi lay muslu seen ay ah borom bi dal di la aar wala mu dal di la jël ne nga nekk ci biir xolub doomu aadama yi ñu bëgg la sopp la xemem ci yow kon ñooñu day seen ay du jóg jëm ci yow kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndaxte rawatina lii nga xam ne mooy sukkandiku ci lu jëm ci istiaada maanaam musluwaay loolu nekk na mbir mu màgg moo xam ne doomu aadama na ko jëmale borom bi subhanahu wa taala na ko jëmale ki nga xam ne mooy ki am kàttan waaye du dagan ñu jëmale ko ci ab yonant du dagan ñu jëmale ko ci ab doomu aadama duñ ko jëmale ci ab jinne duñ ko jëmale ci ab malaaka waaye kañ koy jëmale day mooy borom bi subhanahu wa taala ndaxte moom dong moo ko attan moo ko man foo ko woo mu dal di la wuyu mu ne ñu itam am nañu dalilu istigaasa mu nekk ñetti baat yu niru al istiaanatu wal istiaazatu wal istigaasatu al istiaanatu mooy ñaanu ndimbal boo xam ne mën naa yiix al istigaasatu mooy ñaanu ndimbal bu munul yiix loolu dong moo wute ñaar yooyu ñaanu ndimbal boo xam ne mën naa yiix ñu ne istiaana ñaanu taawee nga xam ne dañ koo yàkkam ci lool mu tudd istigaasa bu fekkee ne bëgg nga ko waay bu yiixee du la wàññi dara ñu tuddee ko istiaana naam moo tax ku fakkastalu woo keneen ku dul yàlla mooy istigaasatu loolu la ñuy tuddee istigaasa ku ko def rek bokkaale na moo tax mu indil ñu aaya bi ne id tastagiisuuna rabbakum fastajaaba lakum maanaa ci gaswatul badar borom bi subhanahu wa taala mu ne ba ngeen di ñaan wëllu bu ngeen yàkkam ci lool ndaxte yéen a ngi nekk ñetti téeméer jàkkaarloog junni boo xam ne bu am doole lool am ay ngànnaay am ay waruwaay te yéen tolluwu leen fa kon boobu yàkkamti ngeen lool xiwalu borom bi dal di ñëw mu ne ba ngeen ma woowee rek gis naa leen yëg naa leen xam naa li ngeen aajoo ma dal di leen tontu wuyu leen lu gaaw a gaaw mu ne dalilu tuur deret mooy rendi kenn waru koo defal bàmmeel kenn waru koo defal anniversaire kenn waru koo defal dara deret duñ ko tuur lu dul jaamu borom bi subhanahu wa taala ku tuur deret ci ay xërëb def na lu xaraam yàpp wa xaraam na kon loolu moo tax lii nga xam ne mooy rendi faat ab bakkan kenn waru koo def lu dul dañ koy jaamoo borom bi subhanahu wa taala moo tax ci turu borom bi rek lañ koy faatee mu dagan waaye nag fuqaha yi ne na ab jullit bu fàtte woon ba muy ren di bismillah dina dagan ñu lekk ko ndaxte la nekk ca xolu jullit mooy turu yàlla ab jullit nag bu ren di woon tudd keneen ku dul yàlla kooku moom xaraam na ñu dal di ko lekk kon lépp lu ñu ren di di li taxoon ñu ren di ko mooy tuur loolu day nekk lu xaraam la te nit ñi ba léegi loolu day génne nit ci diine day def nit ab yéeféer waaye ba léegi nit ñaa ngi koy def ndaxte léegi at bu nekk ñu dañ dégg ñuy yëgle ñu ne fu deret mosa tuuru na fa tuuru fu ñu mosa rendi nangam nañu dem rendi ji ko gaa yi dem tuuru ji ci xeer yeeg ci guy yeeg dem dal di fa rendi def ko ak noos bu mag dal di ko lekk te dafa xaraam rendi ko fa def xaraam yàpp woowa def xaraam te bés bu nekk ñu dal di ko dégg ñu koy wax ah léeg-léeg sax ñu dégg ñuy waaraate ñu naan ñaan la rek ku nekk na dellu ci aada na mu doon ñaanee dal di ñaanee noonu loolu mooy arruju ila al kufri waliyasu billah kon moo tax borom bi dañu qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah mu ne yow yonent bi qul déclaré leeralal leen ne te ñu ngi ko jëmale woon ci ibrahima alayhi salaam nga ne leen naka sama jaamu yàlla ndaxte daa daf ñu tuddal ñaari façon jaamu yàlla ñu représenté yeneen yi mu tudd fii salaa mooy jaamu ñaari maana lañ koy déggee imma sala nekk bi maana dua wala sala nekk bi maana arruku wa sujud ndax yépp day firi asala mooy julli wala mooy ñaan samay jaamu yàlla kon lañ koy firi wa nusuki nusuk aussi jaamu yàlla la waaye dafa am importance boo xam ne bokkaale da ci yomb mooy rendi sama jaamu yàlla ak sama rendi waaye rendi benn la ci jaamu yàlla yi waaye sippi na ko tuddal ñu ko ngir ñu xam ne ah, bokkaale yomb na ci mu ne wa mahyaaya wa mamaati ak sama dund yépp ak gannaaw sama dund muy faatu lépp daal lillahi rabbil alamin lépp yàlla la ñeel moo ko moom la sharika lahu te bokk ko kenn nag bokk ko kenn dalil boobu ñëw na ci sunna ci rendi leneen lu dul yàlla daganul yonent bi ne laana allahu man dabaha li gayrillah yàlla rëbb na képp ku rendil lu dul ngir yàlla yàlla rëbb na ku rendil leneen wala keneen ndaxte li ko yóbbee ci loolu du ngir yàlla mu ne borom bi subhanahu wa taala rëbb na kooku mu ne ñu tegtalu nisër kenn warul nisër ci diw danga war a niséer ci borom bi subhanahu wa taala niséer nag léeg-léeg mu ànd ak ngiñ léeg-léeg du ànd ak moom topol lañu yore woon njabarkat ñi ñoo ko yore ni mu meloon ci nguuru firawna kii nga xam ne mooy mu'tasim billah mu watt na koo xam ne ku dëgër la ku dëgër léegi nag yéeféer yi dal di songu jullit yi benn dëkk dal di ko taal dal di rey ñale yóbbu jigéen ñaag xale ya mooy amuriya benn jigéen nag bañ ko jàppee di ko yóbbu rek mu dal di yuuxu mu ne waa muqtasima mu ne maa ngi woo njiitu jullit ñu jàpp ko yóbbu def ko ab jaam léegi ñu koy nettali di ko nettali di ko nettali di ko nettali muy dem ba ñu nettali ko muqtasim billah bu ñu ne ko jigéen boobu daal ndeysaan dañ koo këpp rek mu ne waa muqtasima ba ko waa ji nettali rek mu ne ko labbayka mu ne wuyu naa ko danaa dem danaa dem ñu ne ko ah déet biddiwu sangam ah biddiw boobu fu mu toll bu ñu demee xeex du baax ci ñun de ak benn biddiw boo xam ne ay biddiw yoo xam ne yi di juróom-ñaar xaw ma lu ko olof di wax biddiw juróom-ñaar boo ko seetee da nga gis ñeent yi ran côté bi yeneen ñett yi ran côté bale ñu ngi koy wax tàccuki xaw ma lu ko olof di wax nag pour boobu moom xaw ma naam ñu ne ko kooku bu tolloo bere bu sàngam day ee bu ngeen demee du baax de mu ne man xooluma loolu kii woona ma dinaa ko wuyu ji li tax mu wooma moo tax ma ko wuyu responsabilité la mu dal di song yéeféer yi dal di leen duma delloo si ñi ñu jàppoon lakk seeni dëkk rey leen dàqe leen dal di delloo mbir moomu ci lii nga xam ne mooy moomeelu jullit yi woykat boobu nekkoon ak moom nag mu won ñu ne nag ndeke njabarkat lu ñuy wax yépp neen la caaxaan la mu ne ñu nag ndeke déglu leen nag asayfu asdaqu anbaan min alkutubi fi haddihi alhaddu bayna aljiddi wallaibi biidu saxaa'ihi laa suudu saxaa'ifi fi mutuunihinna jalaabu shakki warridi mu ne aa ñaari xabaara ngi nii xabaaru jaati ak xabaaru téere la mu jublu ca téere nag mooy téere njabarkat yi mu ne xaatim yooyu ñuy bind ak mbir yi ñuy wax ak di ko lëntal ak mu ne ndeket kat xabaaru jaasi moo gën a dëggu xabaaru téere ndaxte ca ñaw-ñaw ba mu ne mooy teqale diggante dëgg ak fen mu ne gis nga ñaw-ñaw ba mu ne mooy teqale diggante dëgg ak fen mu ne kon ndeke dëgg mu ngi ci weex weexub jaasi waaye nekkul ci ñuul ñuulu bind weex mu ne weex weexu jaati bi mu ne loolooy wax dëgg waaye ñuul ñuulu bind yi sëggal yi téenal yi mu ne caaxaan la rek moo taxoon borom bi subhanahu wa taala wax ñu lan laa yuflihu saahiru haytu ataa mu ne du texe bu fu mu mun a jóge rek gannaaw njabarkat la rek mu ne du texe bu ñu sukkandikoo ci loolu rek mu ne la mooy njëkk a màbb sax mooy économie maa ngi tukki ñu ne yee ab lëndëm laa gis nga dal di fomm dal di toog service nangam de bugg naa faa teg ak gamaan waa ji xool xool mu ne ah mbir mi de lënt na te nga def nangam ak nangam nga dal di toog keneen dal di fa teg ak damaanam moom ñu dal di ko jël yow nga dal di pet kon taxawaay yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax borom bi subhanahu wa taala dal di ñu waxaat ne inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayam summa stawa ala al arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ñi yëpp di ay kéemtaan borom bi ne bàyyi leen xel seen borom mooy ki sàkk asamaan ak suuf moo taxoon mu ne waaw yéen ñi ngeen di yaakaar di leen géñee di leen raamal waaye won leen ma lu ñu sàkk nag dañu yeeyoo jëf jooju ki nga xam ne boo pakkattaloo nga tudd ko borom bi ne ngel lawaay won ma lu mu def beeyoo taxawaay boobu ki nga xam ne booy lekk nga ne ci barkeem boo lekkee ba suur boo giixee dal di ko sant borom bi ne dëgg-dëgg nag war nga maa won lu mu def beeyoo loola man ki def lii yépp nag waaw lu tax nag nga siis lu tax nga soxor be doo ma jox sama njukkal moo tax mu ne attention maa sàkk asamaan sàkk suuf ci juróom benn fan la ma dal di yemoo ci lii nga xam ne mooy al arsh ma dal di sant guddi muy muur bëccëg ma sant bëccëg muy muur guddi bu ci nekk topp borom ba yittewoo la ma ko sant dong mu ne ma dal di leen defal jant bii defal leen weer wi defal leen biddiw yi yooyu yépp ma tàggat ko ci sama ndigal amul benn bu ñemee rëcc amul benn bu ñemee bàyyi xanaa doomu aadama rek ak réeram ak loofam mu ne waaye dëgg dëgg nag xamal yàlla nag moo sàkk waaye kooku sàkk nag moo yore mbir yi te ki yore mbir yooyu dëgg dëgg si moo màgg mooy borom jaam yi kon nañu ko jaamu foofu dong la texe nekk waaye bu fekkee ne xelaatuñu xelaat boobu kon dañuy am ab jafe-jafe kon bépp jafe-jafe bu ñu am ñoo ko indil suñu bopp boo buggee foo barkeelu mu ne jëmal ci borom bi subhanahu wa taala mu ne boo buggee koo ñaan ñaanal borom bi subhanahu wa taala boo buggee koo màggal màggalal borom bi subhanahu wa taala boo buggee koo làqu ci moom làqul ci borom bi subhanahu wa taala kon mooy laa ilaha illa hu moom dong moo fi ne keneen kudul moom dañ la fiy def jamono nekkoon na nekkoo fi jamono dina ñëw nekkatoo fi kon ku yaakaar ne yaay yaakaaru jaam yi teg na ko ci réer te torox na kii yaakaaru jaam yi moo tudd assamadu moom dong la moom dong mooy assamadu waaye keneen ku dul moom yaay almaxluuqu yaay ku ñu sàkk kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee yoonoowu mu won ñu dëgg bi ñu xam ne mooy dëgg mu wërsëgal ñu ñu jaar ci mu won ñu caaxaan ba ñu xam ne mooy caaxaan wërsëgal ñu xol bu koy bàyyi wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi borom bi subhaanahu wa taala ci xiwalam yu yaatu baaxeewaat nañu dajale ñu benn ci néegam yi ñuy nafar luy tax ñu jub yal nañu ko defal kon bu ñuy fàttaleku ñu ngi woon ci masail yi nga xam ne jaam bi mun naa jëfandikoo xelam ci jub im ñu waxoon ne bu ñu la laajee kuy sa borom noo ko xamee junjoon nañu ne dama koo xam ci ay limu sàkk ak ay kiimtaanam kon mu junjal ñu ci mbir yu bari yoo xam ne doomu adama bi mun na ci jaar jub tey nag mu bugg ñoo firil baat boobu nga xam ne mooy arrab ndaxte dañu waxoon ne ida qiila laka bima arafta rabbaka noo xamee sa borom kon mu duggoo nag ñun ci jëfandikoo xel ba xam borom bi tey nag def ñuy tafsiral baatu arrab mu ne boo déggee arrab huwa almaabud mooy fu ñuy jaamu kon loolu moo tax lépp lu ñu jaamu rek jaaltahu rabban dina fekk ki ko jaamu moom def na ko borom ndaxte mooy lu ñuy jaamu mu ne loolu mooy baatu arrab mu ne nag boo seetloo dëgg-dëgg baat boobu am na ay maani yoo xam ne dinañ ko jëfandikoo jublu ci yooya maanaa baatu arab muy wone almaabuud ku ñuy jaamu mu ne léeg-léeg itam baat boobu ñu tudd ko arab fekk lañ ca nam mooy alxaaliq mooy ki nga xam ne moo sàkk léeg-léeg ñu namm ci arraziq mooy kii wërsëgal léeg-léeg ñu namm ci almalik almutasarrif ki moom te am sañ-sañu jëfandikoo la mu moom kon rabb boo ko seetee boo ko tuddee rek wax nga yi yëpp wax nga ne mooy ki yeyoo jaamu moo sàkk mooy wërsëgal moo moom te moo sañ ci sañ-sañam boobu lañu won ne kenn du ko laaj li muy def te yow loo def mu laaj la ko ndaxte de koo sañ kon nag baat boobu rek boo ko jëfandikoo mu ngi mel ni tudd nga yi yépp walla boog ñu tuddee ko murabbi fekkoon ne beneen làmmeñ la ñuy tudd xanaa ñu tuddee ko éducateur walla éleveur te murabbi yore na ay maani yu mel noonu maanaa ku lay jubbanti nga jëm ci li lay jëriñ walla boog ku lay naatal yokk la xel mi yokku jëmm ji yokku lépp dal di yokku kon mooy ki nga xam ne mooy yokk mooy murabbi yokk bi nag bi nga xam ne day feeñ ci li feeñ ak li nëbbu ndaxte ni yaram wi di demee noonu la xel mi di demee mu ne baat boobu itam dina jël maani yu mel noonu kon baat boobu boo ko seetee yóbbu na melo yu bari kon résultat bi dina la yóbbee ne moom mooy kan almaaluhu almustahiqu an yubada waxdahu duna kulli man siwaa mooy almaaluh mooy ki di yàlla ndaxte dafa wone lu tax mu nekk yàlla mu ne kon kooku dong nag mooye yoo jaamu wolis lépp lu dul moom kon loolu la jublu ci baatu arab mu ne ndax wax ji ci moom la jóge déedéet ci borom bi subhanahu wa taala la jóge mu leeral ko ci quranul karim mu ne ñu dalil bi boo nemmee ko mu ngi ci suratul baqara bi borom bi subhanahu wa taala di woowee mboole seenu doomu aadama doomu aadama yi ñaari xaaj lañu benn bi mooy ummatul da'wa beneen bi di ummatul ijaba mooy ñi ñuy woote duggaguñu nekk ay yéeféer ak ñi nga xam ne woyu si nañ nekk ay jullit ak seeni daraja ñépp nag la boole woo borom bi ne ñu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون kon borom bi subhanahu wa taala mboole seen la boole woo yaa ayuha nnaas ee doomu aadama yi maanaa annaas fii ismul jin mboole seen loo xam ne ci aadama la soqeekoo kon ñépp la dal di woo mu jox ñu benn ndigal wa ubudu rabbakum jaamu leen ki leen sàkk dundal leen wërsëgal leen sàmm leen yokk leen jubbanti leen moo yeyoo ñu dal di ko jaamu al ibada dina ñëw ci lan mooy maana ibada kon boo seetee wax ji borom bi subhanahu wa taala ci ñépp la ko jëme amul kenn ku des ya ayuha nnaas ubudu rabbakum jaamu leen seeni borom kon itam junjoon nañ ci suñu bind yi wees ne loolu mooy awwalu amrin umira bi mooy li ñu njëkk a digal xeet wi mooy loolu léeg-léeg ñu tudd tawhid naam ndaxte lii du wér lu dul tawhid bi la nee jaamul borom subhanahu wa taala maanaam mooy gëm ko te topp ko kon boo nemmee ko mooy li ñu digal ab jaam mu dal di ko def kon boo nemmee ko jëf jooju mooy li ñu njëkk a digle ci alquraanul karim ndaxte li ñuy duggee quraanul karim mooy fatiha boo jàngee fatiha da nga gis ne gannaaw ba nga taggee borom bi subhanahu wa taala dal di ko kañ loolu nga ci teg iyaaka naabudu wa iyaaka nastain kon mbir moomu borom bi subhanahu wa taala mu ne du caaxaan mooy yow dong day la ñuy jaamu te ci yow dong la ñuy sukkandiku kon loolu li muy tegtal mooy amul kenn ku ko yeeyoo ku dul moom moo tax ngir leeral wax nañu ci aaya yu bari gëpp yonent gu doon ñëw ñoom ñépp dëppoo nañ ci benn baat ñépp jaar ci baat boobu mooy ban an ibudu llaha maa lakum min ilahin gayru an ibudu llah maa lakum min ilahin gayru ñépp ñi ñu mos a yónni daje nañ ci benn baat boobu jaamu leen borom bi subhanahu wa taala amu leen keneen ku dul moom moom dong ngeen am ci jaamu ko mu jëriñ bañ ko jaamu mu lor moom dong la kon jaamu leen ko moo tax mooy maanaa fi ñu junjël fii obudu rabbakum ndaxte wax nañu ne yonent yi yépp dal di nañ ci daje mu ñëw am benn maanaa itam boo xam ne mooy iyaaka na'budu wa iyaaka nastain gannaaw bam ñu ko waxee ñu dal di saxal ñu won ko ne nag li nga wax dégg nañ ko nangu nañ ko kon yow dong nag la ñuy jaam ci yow dong nag la ñuy sukkandiku jaam bi loolu mooy ñaareelu kollëre bu mu faslanteeg borom bi subhanahu wa taala kollëre bu njëkk ba mooy ganeegul aduna bañ leen dajalee ci alamul arwaax borom bi subhanahu wa taala bépp bakkan bu mu nar a sàkk mu seppi leen dal di leen teg mu ne leen alastu bi rabbikum xaalu bala mu ne waaw xanaa du maay seeni borom mu ne waaw waaw mu ne dama leen koy seedeloo nag ëllëg ëllëg balaa ngeen koy bañ a def nga ne borom bi subhanahu wa taala waxoo woon nangam wala defoo woon nangam kooku mooy kóllëre bu njëkk kóllëre ñaareel mooy bii gannaaw ba mu ñu waxee alastu bi rabbikum xanaa du bàyyi seen borom ñu ne ko balaa ahankay tawhid dugg na fi léegi nag li des mooy laay wone tawhid mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala ba ñu ganee aduna nag ba togg jëf dal di jot ñu ne ko nag iyaaka naabudu wa iyaaka nastayin kon loolu ñu fedd li woon day ñu ngi koy gën a fedd li waat yow dong day la ñuy jaam te ci yow dong day la ñuy sukkandiku sukkandiku nag am na ñaari maana al istiaana am na ci bu dagan am bu haram bi dagan nag teral tegal nañ ko ay ay chart an yastaina bi hayyin haadirin qaadirin ñetti sart bu fekkee ne dangay sukkandiku ci kudul yàlla foog ñetti sart daje ci sukkandiku ba mu mun a dagan foog mu nekk ku dundu foog mu nekk ku teew fa nga nekk foog mu nekk ku man la ngay sukkandiku ci moom ñëw nga ci moom nga ne ko dimbale ma ma yiru bi waaw sukkandiku la kon hasa jaayi man na ko jàpp nga jàpp nga yenu dal di dem ah dimbale ma ma dal di def lii kon loolu man na ko waaye koo xam ne yaa ngi fii mu ngi kaw la nga toog fi nga ne asta inu bii loolu mooy li haram def nga ko yàlla parce que daa yàgg dégg moom yëgul ne sax yaa ngi sukkandiku ci moom yëgu ko wala mu nekk ku faatu xam nga ne kooku laa yaqdir wala mu nekk ku dund teew ak yow waaye nga ne ko maa ngi lay ñaan day nga musal ma ku munul musal boppam mun na musal keneen maa ngi lay ñaan day nga dugal ma aljanna ku ku xamul moom ci boppam fu mu jëm mun naa defal kooku leneen moo tax istiaana istigaasa ñaar yii mooy ñetti sart yi bu ci dajee dagan na buñ ci dajewul ci yàlla dong lañ ko war a def istiaana mooy ñaan nit ndimbal ci lu mun a xaar lu yàgg mooy istiaana ñaan nit ndimbal boo xam ne yaa ngi ko bëgg balaa ngay noppi fekk defal na la ko mooy istigaasa mooy ni nit di dem rek tiit ni subhanallah ah keneen ki dal di woo ki mu ki mu yaakaar kon kooku mooy woni dëgg dëgg ne des na iman amul ndaxte nit ki bu tiitee rek day dellu asl day dellu cosaanam nit ki boo ko bettoon def ko lu métti wax ja mu gën a mokkal loolu lay wax du wax leneen lu dul loolu kon nag moom itam ba mu demee ba tiit xam ne yaakaar na ne alku na kamu woo moo nekk ci xol bi laysa mu'minan abadan amul iman bu amoon iman rek woo allah parce que huwa alxayu alqadiru ala kulli shay mooy ki dund man lu ne waaye bu dara ne tafeet nga tudd ab waay boo xam ne sul nga ko bu yàgg lillahi wa inna ilayhi rajiun xam nga sart yi dajewuñ ñaari sart ñett yi yépp bokk nañu fàddu maanaa dañu waxoon an yakuna hayya yi dundatul wa an yakuna haadiran mooy mu nefi ku dundatul moom nekkatul kon sart bi nekkul wa an yakuna qaadiran mu man ko kon ñetti sart yi yëpp bokk na bañ a ne kon yow bokkaale na da nga war na woo borom bi subhanahu wa taala kon yooyu nit ki da ci war a bàyyi xel bu baax a baax ci wax jii nga xam ne borom bi wax na ko ngir ne jaamu leen seen borom waaw ban borom ci jamono ba ñuy wax yooyu am nañu jàppoon ay borom am nañu ndem jàppewuñ ko mooy ñi sàkk comme niñ koy waxee ci jamono bu ne borom jàpp nañ ne ay borom am nañu ku bokkul ak allah kon moo tax moom mu leeral mu ne ah man nag ki ma jublu ci borom yi mooy alladi xalaqakum ki leen sàkk fii nag moom leer na xattal mukaabi même ki nga xam ne day dal di bañ waaye moom ci boppam xam na ne kamu yaakaar sàkku ko kamu yaakaar léeg-léeg de mun na ko tuddee yaakaaru jaamu kon nga jaam yi torop nañu naam bu dee doomu adama mooy seen yaakaar koo xam ne mënalul boppam dara te lu mu def borom bi subhanahu wa taala ne ko lu tax kooku bu nekkee yaakaaru jaam mu torof de naam walladina min qablikum waaw ndax ñun rek la sàkku mu ne déet ak ñi leen jiitu woon de hunaka umam ay xeet yoo xam ne demoon na moom moo leen sàkk de waaw lu tax lu tax nañu ko jaamu moom moom dong borom bi won nañu cause bi tax yani at taalil mu ne laallakum ah ngir ngeen mën a mucc ndaxte at taqwa mooy jaalu baynaka wa bayna adabillahi wiqaaya mooy nga def sa digganteeg mbugalu borom bi barage mu ne ngir ngeen mën a mucc loolu dong de moo tax ma ne jaamu leen ma man dong ngir ngeen mën a mucc ndaxte loolu dong moo leen di musal te kooku itam li mu def moom dong moo ko man kon nag nañ ko jagleel loo xam ne moom dong lañ koy jox mu ne bokk na ci lim leen defal alladi jaala lakumul arda firasha mu ne maa leen lalal suuf sii nga tëdd ci suuf soosu taxaw ci suuf soosu nag jaamu keneen wala fakkastalu tudd keneen xam nga ne loolu ñàkk jom la dëgg-dëgg doomu aadama bu doon xelaat suuf si jàmbul si nga xam ne moom la ñu lal allah man maa ko moom kon lu la fa dab wooma mu ne loolu benn la ci samay xiwal wasamaa binaa mu ne ma defal leen asamaan boo xam ne mooy mbaar ni leen tiim loolu man dong maa ko man wa anzala min alsamaai maa mu ne yemuma fa de ma dal di digal ab asamaan ma wàccee fa ndox ndox mi wàcc ñëw fekk si la ci suuf mu ne lu tax ma wàccee ndox boobu li uxrija bihi min alsamaraati rizqan lakum aw fa axraja fa axraja bihi min alsamaraati rizqan lakum mu ne ma génnee ci ndox moomu maanaam sababu wàccu ndox mi nekk sababu eh, saxal gàncax mi ñu dal di sax dal di ñor mu ne ci sababu wàccu suuf soosu wàccu ndox moomu ma defal leen ci meññit bu bari mu tuddal ñu résultat bi bàyyi fi muy jaar ndaxte ndox du wàcc rek meññit am maanaam day saxal dara loolu dal di sax ñu toppatoo ko mu màgg dal di meññit mu ne meññit boobu risqan la mu nekk seen wërs ngeen dal di ko dundee boo seetee li doomu aadama yi dundee yépp mooy liy jóge ci suuf xëy na kay ñu modifié ko def ko leneen ak leneen ak leneen mais lépp cosaan baa ngi ci suuf mu ne gis ngeen yooyu wóor na leen ne man dong maa ko man ñu ne waaw mu ne fala tajalu lillahi amdaada kon ku luutal yàlla morom mu ne xam nga ne amul morom de an nidd mooy ku mu yemoo kuy def lu mel ni la muy def mu ne kon bu bu leen ma ko wuutal te nag fekk wa antum taalamun te yéen ci seen bopp nag wóor na leen ne aw ma morom xanaa kay da ngay dal di féttéelu rek wala dal di def lu la neex nga wuutal ko borom bi subhanahu wa taala waaye wóor na na borom bi subhanahu wa taala moom amul morom aaya bi ci suratul baqara ibnu kathir rahimahullah am lum ñu wax ci aaya bi mu ne borom bi subhanahu wa taala mooy alxaaliqu li hadihi al ashiya huwa almustahiqu lil ibada mu ne ku sàkk mbir yi mu junj sàkk suuf dal di ko lal te ci suratu nuux bu ñuy fàttaleku am na lum ñu fa junjal mu ne ñu wallahu jacala lakum al arda bisaatan litaslukuu minha subulan fijaaja mu ne borom bi subhana wa taala moo leen lalal suuf sii ngir ngeen def ci ay yoon yoon yoo xam ne da ngeen ci jaar am fu ngeen di dem nit ñi dem ba gis ne réew mu amul yoon du avancé ci économie abada économie mu ngi tàmbale nga am yoon fooy jaar ndaxte loolu mooy dimbale doomu aadama te yoon yi nga xam ne la ñuy defar mooy godron yeeg mbir yooyu yëpp borom subhana taala mu ne yow sama mbaaxaay la ndaxte bu ma lala lalu loon suuf si mustahil doo dem waaye lalal naa la suuf si yombalal la ko sax ngir nga def yoon bu la yombal loolu munoo da ngay jéem ba sonn mais yoon du am waaye borom subhana taala mu ne loolu yëpp ma yombalal la ko kon moo tax mu junjal ñu suuf junjal ñu asamaan ibnu kathir rahimahullah mu ne ñu ki sàkk mbir yii nag nañu wóor ne moom dongo nag moo yeyoo al ibada mooy ñu dal di ko jaamu jaamu nag buñ ko seetee nekkul lu du toroxlu jaam mooy toroxlu dong ci kanam borom bi subhanahu wa taala lii nga xam ne nag mooy mbir yim ñu junjal fii mu ne boo seetee mun nañ koo dugal ci ay kéemtaan comme ni mu jiitalee woon kéemtaan yooyu nga xam ne waxoon nañu ko kon mu ne mbir yooyu yépp bu nit ki amee xel dina tegtaloo ci xelam xam ne dëgg dëgg ki def mbir yii moom moo yeyoo lii nga xam ne mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala lii nga xam ne mooy ibaada baat bi ci boppam borom bi subhanahu wa taala namm ci ñu toroxlu ci kanamam jëf la muy digle bàyyi la muy tere waaye baat bi ci boppam lan lay firi borom xam-xam yi wone nañ ci mbir yu baree bari ñu ne bokk na ci li nga xam ne moom lay firi ci sharia mooy ndigal buñ la digal boo xam ne mbaax xamu ko xel déggu ko mu ne loolu mooy ibaada loo xam ne mbaax ci boppam maanaam li ñuy wax aada moom ci boppam xamu ko waaye boo setee xel ci boppam itam munul àgg ci maanaam dëgg-dëgg masalan julli mag mu kallaf boo xam ne day ñëw rek toog taxaw jàkkaarloo benn gox di sëgg di siggi mbaa xamul loolu maanaam aadam doomu aadama rek xamu ko ndaxte aadam doomu aadama day wane ne kii tàggoo naag xelam mag boo xam ne day sëgg siggi dem yàgg ruku dal di jógaat tegaat jëbi suuf toogaat xool fii xool fee joxoñ def mbir yu mel noonu loolu aada xam ko day wax ne kii dafa dof kon loolu moo tax ñu ne loo xam ne borom bi digle na ko te mbaax ci boppam xamu ko waaye ndax xel nangu na ko xel nanguwu ko ba def te xel day gis ne normalement doomu aadama loolu mooy lan ba léegi lu tax ñu digal la julli allahu aalam loolu mooy li nga xam ne moo koy bégal waaye lu tax moo tax ñenn ñi ne mooy torox faq waaye torox lu muy jëriñ borom bi subhanahu wa taala am nañu jox ne définition bi ñu ne loolu mooy ibaada waaye ba léegi boo seetee day xaw a des définition bi boroom xam-xam yi gën a tànn mooy bi nga xam ne ibnu taymi rahimahullah génnee na ko mu ne loolu mooy ismun jaamiun li kulli maa yuhibbuhu llahu wa yardaahu min al aqwaali wal aamaali alzahirati walbatin mu ne al ibaada ismun tur la boo xam ne dajale na mboole seen loo xam ne day bégloo borom bi subhanahu wa taala mu koy bégee day bégloo borom bi mu koy bégee moo xam kàddu la moo xam jëf la moo xam lu feeñ lu doomu aadama mën a gis la wala lu fàddu la loo xam ne yaag borom bi dong yéena ko mun a gis mu ne loolu mooy ibaada mu ne baat bi boo seetee loolu mooy ibaada kon définition boobu la borom xam-xam yi gën a tànn nañu ne moo gën a matale waaye jaamu borom bi subhanahu wa taala nag daa am ay melo moo tax al muallif rahimahullah mu ne ñu wa anwaau l ibaada allati amara allahu biha mu ne melo jaamu borom bi subhanahu wa taala yi nga xam ne moom borom bi moo ko digle mu ne misle maanaam misaal daf ñu ciy dóoral misaal rek waaye du indi yëpp ndaxte xejul ci téere mu ne lu mel ni al islaam al iman wal ixsaan mu ne lu mel ni ñett al islaam al iman wal ixsaan boo ne islaam ne iman boole leen ci benn kaddu ñoom ñaar ñu wuute la ñuy firi boo tuddee fale islaam dem ba sori tuddaat fale iman ñoom ñaar li ñuy firi nekk benn moo tax boroom xam-xam yi wone ne ida ittahada ixtalafa wa ida xtalafa ittahada ñaar yi bu ñu teqale koo rek li ñuy firi nekk benn sens boo leen boolee ci benn phrase li ñuy firi dal di wuti kon su fekkee ne boole nga leen al islam mooy firi jëf du feeñ al iman firi jëf du làkku iman maanaa islam am juróomi ponk mooy yu feeñ yi mooy tudd ñaari baatu seede yi ñu dégg ko boole la ci julli bi ba dal di saxal julli dal di génne asaka dal di woor weeru koor dal di dem makkatal mukarram yëpp boo ko defee joomu adama yaa ngi jàkkaarloo ak moom kon juróom yi nekk al islam amma al iman nag yaa sa borom bi yéen a ko xam xanaa day nga jëf jëf juy wone la nekk ca xol ba ñu atte la ca loola moo taxoon mu nañu al iman mooy lan an tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al akhir wa an tumina bilqadri xayrihi wa sharri mu am moom itam juróom benni ponk mooy nga gëm yàlla gëm malaakaam yi gëm téeréem yi gëm yonentam yi gëm ne bés penc dina ñëw nga gëm ndogal moo xam balaay bégloo wala balaay jox tiis lu mu ci mun a doon rek a dal di ko gëm gis nga juróom benn yi yëpp jëfu xol la ci biir la dal di nekk mu ne kon ba ñaari baat yi bu ñu dajee rek loolu lay dal di fi amma nag boo waxee fee islam islam du mun a am te iman amul kon ñu firi benn maana boo ne fale itam al iman iman munul am lu dul islam jiitu ko ñu firi benn maana ba léegi ñoom ñaar nag boo leen boolee ñu nekk cib doomu aadama mu rafetal na mu leen di jëfee loolu mooy al ihsan foofu la ihsan di ñëw nag mooy rafetal ñu mel ni def sa kër def yépp ba mu mat mun nga ciy dëkkee waa nga ne ah balaa may dëkk daal foog ma daal di peinture fii daal di karole fii daal di gis ne du nga tee dëkk mais nag da koy jox ab taar da koy daal di rafetal mooy ñi nga koy jëfandikoo loolu moo nekk ihsan mu ne ñett yii day ñooy melo jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye am na yeneen nag yu nekk ca ron ga mu ne bokk na ca ya nekk ca ron ga addua mooy ñaan koo ñaan rek jaamu nga ko ndaxte addua u ibada koo mun a ñaan ci aduna rek jaamu nga ko waxuma ñaan may ma de la ñaanuk tàllallah ndaxte wuute naag may ma amma boo amul dépense nga ni may ma fii ab dépense yaamumuloo ko ndaxte boo seetloo charte ya ñu waxoon daje na de ndaxte nit ki du ñaan ku dee ah te bu teewuloon sa kanam doo ko doo ko ñaan te bu manuloon li nga koy ñaan itam du sotti kon ñetti sart yooyu dajewaat na kon boo ko ne may ma wala dimbale ma wala lebal ma loolu lay sa ibada kooku du jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye ñëw ci bàmmeel nag ne ko awma dépense xat abat tawu jaamu nga kay kon teewul li kon dina fekk jaamu nga moo tax mu ne ñu adduaa u mooy ñaan wal xawfu ak ragal ragal bii nag waxuñ ragal tabi déedé ku la ëpp doole ku la song nga ragal ko daw waxuñ boobu de déedé ragal bi ñu wax rek nga tudd ci mbiram rek ne wu ma yàlla jéggal waaye day tudd naa ko nangam nangam loolu la ñu wax ragal boobu la ñu wax nag déedéet boobu yàlla dong war raja ak yaakaar maa ngi fii rek di yaakaar diw torox nga de ndaxte def nga musiba kenn du yaakaar doomu adam wa tawakkulu ak wàkkirlu wa raxbatu ak xemmen wa rëhbatu ak tiit wal xusuumu ak toroxlu wal xasiyatu ak ragalu xol wal inaabatu ak dellu ci moom mooy tuub wal istiaanatu ak sukkandiku wal istiga wal istiaasatu ak làqu wal istigaasatu ak ñaanu wollu wa zabhu rendi wa nazaru nisér wa gayru dalika min anwaa il ibada ak yeneen lu dul loolu loo xam ne daa bokk ci jaamu borom bi subhanahu wa taala yii mu junju loo ko defal lu dul yàlla rek jaamu ko lii moom liñ ko war a defal mooy lan mooy allah yàlla dong moom la ñu war a jëmale mbir yu mel nii mu ne kon borom bi subhanahu wa taala digle na façon jaamu yàlla yoo xam ne yu bari la lool kulluha lillah kulluha mu ne yépp nag yàlla la ñeel luy sa tegtal mu ne sama tegtal mooy waxu borom bi subhanahu wa taala wa anna almasajida lillah fala tadu maa allahi ahada wa anna almasajid tafsirkat yi joxe nañ ci ñaari façon tafsir ñaari yépp wér nañ ñu ne wa anna al masajid li ci borom bi subhanahu wa taala jublu al mawaadi al mabniyati li ibadatillah mooy béréb boo xam ne tabax nañu ko wala fàkk nañu ko ngir ñu jaamu fa borom bi subhanahu wa taala kon mooy jàkka yi attention kon jàkka yi yàllaa ko moom boo fa duggatee bul tàggati kenn bul xañati kenn bul ñaanati kenn bul yaakaarati kenn moo tax boo fay dugg loo ko war a duggee bismillah bismillah lañ fay dugge ci turu boromam ndaxte moom moo ko moom ah bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahumma aftah lii abwaaba rahmatika noonu lañ fay duggee maanaam jiital sab ndeyjoor tudd turu borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñaanal ko xoolal hatta rasulullah dañ koy ñaanal kenn du ko ñaan ñaanal ko sallallahu wala wasalaatu wasalaamu ala dañ koo ñaanal nga ne yag borom bi subhanahu wa taala ubbil ma sa buntu yërmande gis nga yaa ngi jëm ci moom loo bugg yërmande booy génn loo koy wax ubbil ma sa buntu wërsëg ndaxte li mu tegoon ci sab loos def nga ko ba pare daa am lum la war lum ah mooy borom bi subhanahu wa taala li nga ma waxoon def naa ko de kon la ma la waxoon la nga ma waxoon hakaza maanaam li nga ma waxoon def naa ko kon nag lan ma waxoon kon booy génn lan ngay wax allahuma aftah li abwaaba fadilika ah kon ubbil ma sa buntu ngédéel loolu mooy wërsëg kon ñu ne tafsir kat yi ne maana zalika kon mooy ki ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala ñeneen ñi ne ah déet xanaa dégguleen waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ñu ne mooy booy sujuudal borom bi subhanahu wa taala cër ya ngay sukkandiku cër yooyu bu ñu toroxlul doomu aadama abadan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah man dey sama borom digal na ma bu ma koy sujuudal na juróom ñaari yax sujuud juróom ñaari yax ñoo war a sujud mooy jëbeeg bakkan bi di benn ñaari tënk loxo yi di ñaar ñaari bëtu óom yi di ñaar ñaari cetu tànk yi di ñaar kon mooy ñaata juróom ñaar yaani ñaari cet yi ak ñaar yi muy ñeent ak ñaar yi muy juróom benn mu aadama lu xaraam la kon mbir yu mel noonu loolu moo tax ñu ne aaya bi bu leer la almasajid ya mooy wax foofu mooy cëram yañ koy sujuudal mooy yi ngay sukkandiku ba mun a sujuud loolu la ci borom bi subhanahu wa taala namm waaye du jàkka ji rek waaye boo seetee maani yu jegee la maani yu jegee la doonte am na yenn détail kon mu ne loolu mooy borom bi subhanahu wa taala li mu teg kon yi mu junj yépp nag faman sarafa minha cheyan li gayri illahi fa huwa mushrikun kafir mu ne yi ma la junjal yépp ak yeneen yu dul yooyu loo ci defal mbindeef bu dul yàlla rek ki ko def bokkaale na te yéefe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon bokkaale na te moom ci boppam day nekk ab yéeféer kon mooy lan mooy tax mu nekk yéeféer mooy duaa u gayrillah man daa gayra allah faqad ashraka fal mushriku kafirun kon këpp ku ñaan keneen ku dul yàlla ne kooku bokkaale nga te këpp ko bokkaale moom yéefér la ndaxte gannaaw xaraamal nañ ci yow aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna borom bi ne ku bokkaaleeg man ba dee te tuuboo ko rek jahannam yal nañ ko borom subhanahu wa taala musal waaw ñu ne ko ndax am nga ci tegtal mu ne aha am naa ci tegtal de ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne wa man yadu ma allahi ilahan axara la burhana lahu bih fa innama xisaabuhu inda rabbih innahu la yuflihu lkafirun borom bi subhanahu wa taala mu ne këpp ku woo keneen kudul man boole ko man fekk mu ma doon woo mu woowaale ci keneen mu ne aa kooku day dina fekk samp na keneen ku ñuy jaamu kudul man te loolu mu def nag laa burhana lahu bi mu ne amu ci tegtal de amu ci référence loolu mu def de koo def rek ci boppam waaye quran diglewul sunna diglewul te ñaar ñii bu ñu diglewul kan keneen moo war a digle kon mu ne amuloo ci lay de mu ne waaye nag ki jëf-jëf jooju ñu ngi koy attee ca yàlla yàlla moo yore atteem mu ne borom bi subhanahu wa taala moo yore atteem mu ne na la wóor na nag borom bi moom bu yoree atteem këpp yéeféer du texe xoolal aaya bi fan la mujjee innahu la yuflihul kafirun kon nag man daa gayra allahi faqad kafara borom bi subhanahu wa taala li mu njëkk mooy ku woo ku dul man fa mu mujjee mu ne ndaxte kooku du texe ndaxte borom bi subhanahu wa taala du gindi yéeféer yi kon loolu day tax nit ki nekk ab yéeféer mu ne itam am na beneen tegtal ci sunna mu ne yonent baa ngi wax ne addu'aa'u muxul ibaada donte nag boroom xam-xam yi ñu ne hadis bii moom ah dëgëru hadis bi daal ñu ne wérul maanaa bi wér na de waaye hadis bi des na ah kon nag fii itam niteb doomu aadama de ciy génn boroom xam-xam la taalif na mais am na lu ko rëcc ba benn hadis dal di dugg hadis bi kaddu gi niñ ko waxee yoon wa mu jaar borom xam-xam ñu wér kon ban hadis mooy wér mooy addu'a u huwa al ibada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne addu'a ñaan mooy jaamu yàlla ñaan mu ne mooy jaamu yàlla képp koo xam ne rek ñaan na rek mu ne jaamu na waaw ndax loolu ni mu amee dalil ci sunna ndax amee na ko dalil ci quran boo xam ne moo ñuy gindi mu ne waaw waaw am na de mu ne dalil bi mooy lan mu ne mooy waxu borom bi subhanahu wa taala wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin borom bi subhanahu wa taala mu ne borom bi ne na uduuni astajib lakum woo leen ma ma wuyu leen kon képp ku dugg néegam dal di làqu génn di dof woo yàlla de alalala moo tax borom bi subhana wa taala leeraloon na de innama yaduuna cheytaanan marida mu ne ñi ñuy woo kay mooy ay seytaane yu féttërlu ay seytaane yu féttërlu moo tax ñuy nett ni benn waay boo xam ne daa dugg xalwa nekk fa ba mu yàgg lool mu jóg rek tampone buntu bi daan ci biti jóg taxaw mu ne maane yàlla ti macha allah maane yàlla ti kon ndeke am na keneen kum doon woo budul yàlla ti kooku nag ëpp ko doole mu dal di génn nag wax loolu nga xam ne moo ko wax kon loolu moo ñu wone woowu loolu yàlla ti ah kon loolu moo tax képp ku ko woo borom bi subhanahu wa taala tilim xamal ne seytaane lay woo woowul allah de daa ami tur yu ñuy sikkar yoo xam ne seytaane la te seytaane balaa nga koy jege foog nga tilim seet leen saxara yi ñi ngeen di romb léegi ci mbedd yi ñu jóor ay pettaaw dangay xool jëmm jëna mu mel rek day salte tilim siixlu fa mu ko teg salte ndaxte seytaane du jege ku set abadan ku ànd ak laab dal di set seytaane teqale ko nag yow buggu la